fi nekk également ci àdduna wërngal këpp tambalé ko ci Sénégal gox yëpp ku lim jiwma fàttewuñu séeréer yi hal Haalpulaar yëpp suñu bokk séeréer yi chrétiens yi musulman yi ñëpp ah duma ma lim mais ku par exemple ci gis sa bop mais aussi ñu également ñu nek ci gox yi nek ci Afrique ah, muy wa Mali Guinée Mauritanie Cap-Vert hein Guinée Bissau Afrique du Sud fep ku ñu lim jim juum également Égypte ak ñëpp ñu ngi leen wax ci bir wa mbokki Qatar yi également ak ñu nek ci Europe Italie et tout gars yëpp ñëpp ah ñu ngi leen wax on avance ensemble jëm ci actualité bi tay dañu wax si également ci li nga xamné moy mooy Cissé ñi nga xam ne mën na leen wo pour renforcer équipe nationale du Sénégal bi ak aussi li nga xamné moy problème bo xamné analyse bo xamné def nañ ko ci match bi di ñëw aspect positif bi nak lañuy wax jëm ci match bu ni mel mais bala bobu dañuy wax également ci li nga xamné ne jëm ci yéenekaay yéenekaay bi nak ci stade mom ak ñi nga xam mooy Demba Varor mu le Sénégal avec la France comme en 2002 lol interrogation la di wax ci également ki nga xam ne Mohamed Salah dafa melni ni également dañ Sadio fi mu ne daf ko fay Sadio Mané mi nga xam ne tamit ak Edouard Mendy lañu tan ci 11 mondial bi loolu nañ ci dellu si yéenekaay bi di record mom ñu le visage du groupe de la mort wax ci yo xamné ne Sénégal, solide leader africain, à la internationale pour euh, euh, sala par Mané provoqué par Mané loolu kay bi di record wax li nga xam moy suñu lamb kenn xamul nak ndax poisson d'avril la wala déet ñom ne nañ Ama Baldé Modou Luc Nicolaï se retire du combat wax ci également ki di satiès Thiès je veux croiser Eumeu Sène ak ki nga xam mom moy Bombardier né loolu mo nekk ci xolam loolu moy rêve am également gay hein ah, jëm ci VAR bi VAR bi comme je le dis toujours hein day nekk yoon pour un peu échanger wax ci aussi ci actualité bi également doli suñu culture générale li jëm ci VAR bi nag dañuy fàttali rek né tay gay inshallah rabbi ah, hein 16 heures heure sénégalaise yenen ñi nek ci tugal rawatina de France et tout donc 18 18h euh, la tay donc ñu def tirage au sort yu xam Sénégal ñan la wara a dajal ci nga xam moy premier tour coupe du monde bay wara a ci

bañ defaat ay test ñoo ngi Stéphane Curry moom fin de saison moom au niveau de la NBA ki nga xam ne également moom ngeen gis ni di Clarence Sidorf, kii mooy le seul joueur boo xam ne il a remporté gars yi trois ligues des champions avec différents clubs hein. il a remporté plutôt quatre Ligues des Champions avec différents clubs muy Ajax a également ci Milan jaar ci Real de Madrid qui fête ses 46 ans ci nous jigéen ñi également ñi di Olympique Lyonnais nous ñoo mujjee dóor nous Juventus de Turin ci quart de finale Nous avons nag derby bi ma finalement dina am classico bi war a am diggante ñi di Olympique Lyonnais ak Paris Saint-Germain ñaar ñi nga xam ne ñoom leader yi championnat de France nous avons kàngam Kangami. donc mi donc donc ñoom daal ku ci gagné peut-être nga am Barcelone bi nga xamné aussi mom day joué demi-finale mais moy grandissime favori bi le FC Barcelone par rapport ak jongante bi nga xamné mom la wara a amal buñu ñu ci lolu loolu gars également on va parler ci li nga xamné aussi mom moy jom ci Qatar 2022 avec également Aboubacar Niass Aboubacar hein. Boubacar Boubacar Niass donc di designer bo xamné ne gars yi def moy yëpp ñukoy féliciter moom également mo def image bi ni hein donc mom c'est quelqu'un bo xamné war nañ ko encourager ñu mëna a jënd mayoom jënd leen aussi hein donc gars yi gars ni, ngi nii ñii nag mooy yi nga xamné ñom ñoy ñooy li di trophée mondial sociale bii di coupe du monde bi donc war a amee Qatar Sadio Mané également sur le starting block pour départ on espère que le Sénégal mën na créer surprise bi dem fu mais aussi dañuy revenir un petit ci match bi amoon Sénégal ak Égypte on l'a vu Sénégal m'a qualifié malgré tout, le wax Sénégal m'a dóor Égypte série tir but donc un but à 0 le Ghana bu ñu dóor ñoom 1 but à 0 dem série tir au but kii Edouard Mendy ak Sadio Mané sauvé mais li ñu si a jàngat il a mûri techniquement et tactiquement Aliou Cissé commencé à accepter critiques mais Aliou également il a fait de bien mettre ki nga xam ne Youssouf Ndiaye également notre confrère hein, Scholes mi de xam moo def photo bi il a beaucoup apporté défensivement et offensivement aussi Boulaye Dia mi gars yi doon critiqué ma Boulaye Dia depuis Coupe d'Afrique bi joué luñ ko woon postom Boulaye Dia bañ ko joué léegi nga xam ne gars yi ba donc il a montré ce qu'il sait faire Moi, Dougal keroog moom moo Sénégal gagné aussi c'est le premier buteur de l'histoire hein, du football sénégalais défense nga xam également hein, Pape Abou c'est le rock de la défense aujourd'hui qui est plus qu'un simple remplaçant Pape Abou Cissé bon xam gars yi mën nañu wax aussi bon ci homme du match hein, parce qu'il a fait un match phénoménal un match monstrueux gars yi ñu relance mais relance avec centre avec Sadio Sadio et tout donc aujourd'hui les qui connaissent le Sénégal comprennent que 4-3-3 bi ñu contre l'Égypte nga xam ne Égypte gagner donc moo tax 4-4-2 en en 2, 3, 1, pour permettre au Sénégal am beaucoup plus de profondeur beaucoup plus également de verticalité Pape Alassane Gueye mi nga xam une na également Une percussion une percussion une dédoublement il également li nga xam moom la soxla ci meneur et aujourd'hui donc Pape Alassane Gueye qui a marqué des points Ahmadouna Ahmada également photo yi on a vu également que Ahmadou Bamba aussi moom gars yi ba il a montré apporté ce plus série penalty bi également il a montré que c'est un très très grand tireur Bamba Dieng insouciance bi mu am man moo neex ci booy la relève qui se prépare parce que Pape Matar également dugg ak Cheikh Kouyaté ñaar aussi ça a beaucoup apporté ça a beaucoup apporté sincèrement Cheikh Kouyaté gay dañ koy critiquer mais Cheikh Kouyaté il est bon dans ce milieu de terrain du Sénégal mu nek remplaçant et tout mais l'essentiel mooy connais ne mënagul génn ci équipe bi également qui a besoin de plus de temps de jeu en sélection retrouver confiance également ci FC Metz parce qu'aujourd'hui, gosse bi en matière de coup franc il peut nous valoir beaucoup de choses parce que mo dàq dóor coup franc ci Sénégal ci li ma ci li ma gum par rapport ak li fi am mais aussi hein ne pas oublier Saliou Ciss waxoon naa ko nee na bu amé ben binôme bo xam day melni Pape Alassane Gueye bo xamné day décrocher également du jeu dans la verticalité dans la profondeur mun am aussi li nga xam moy vivacité day gis motax tax également il a fait un match très très correct pendant ce temps également ki nga xam ne mooy Ahmadou Bamba Dieng aussi gars yi wax naa Bamba Dieng c'est un joueur bo xamné aujourd'hui gars yi bu amé confiance aussi momit am li nga xamné moy donc lucidité devant le but euh, concentré un peu mën nañu valoir lu bari bari bari Ahmadou Bamba Dieng Idrissa Gana gay gars yi ah damay wax ay statistiques parce que gars yi dañuy critiquer parfois pour critiquer man on a Idrissa Gana Gueye liñ koy jouer lo nonu à milieu à trois défenseurs milieu défensif mënu see mais buñ ko repositionné ak benen milieu il xamné mom Idrissa de day retrouver poste de prédilection am retrouver rôle da ci pourcentage ngi ah, il a touché 86 balles passe précise ah, en 54 là dem 84 passe clé 6 centre mi mu def donc tir donc duel au sol 15 duels au sol donc gis nga donc 8 remportés Idrissa Gana Gueye il a été excellent hein, gars il faut pas le noter donc note de 8 lañ ko jox également 86 ballons touchés 80% de passes réussies 0,6 passes clés 3 centres 8 duels au sol remportés 5 tackles 3 intersections et 3 passes en profondeur 3 interceptions plutôt donc day y a Idrissa Gana Gueye gars quoi qu'on puisse dire nekkoon na ci hein. gars yi buñ bu lay critiquer dañ lay critiquer rek mais vrai que ben moment nekkoon na en meilleure mais entre temps également Idrissa Gana Gueye a beaucoup évoluer et aujourd'hui Sénégal aussi euh, la lañu changer un peu du coupe du monde pour maintenant coupe du monde a décidé pour opter pour un système de 3... 4-3 moy donc un système à trois défenseurs yo xamné ne également day am ki nga xam ci accès moy donc Diallo ak Koulibaly peut-être Malang Sar mën na ñëw wala bok aussi Saliou Ciss Gana nga am ko Sabaly Nampalys Ismaël Sadio beneen côté bi donc Namp comme je l'ai dit Malang Sar bo xamné gars je l'avais dit sur le principe mom il est prêt à venir pour l'équipe nationale du Sénégal plutôt jouer avec l'équipe nationale du Sénégal nek na lo xamné également sur le flanc gauche dina apporter leen bu fekkee le Sénégal day jouer face à une équipe bo xamné bokku la comme équipe africaine yi du défendre mën na jouer une avec une défense à 3 yo xamné dañuy tek suñu trois défenseurs Ismaël Sarr jël benn LB. bi Sabaly jël également fi nga xam ne mooy benn aile bi Sadio Mané mën jouer en profondeur buñu amé ben joueur bo xamné aussi melna na Crépin Diatta wala yeneen joueur xam ne nañu apporter plus de jeu et de vivacité nañu apporter dara y'a également Niakhat mi nga xamné actuellement aujourd'hui il est un joueur bo xamné il est sélectionnable pour l'équipe nationale du Sénégal parce que mom il a la double nationalité donc mom football pour équipe nationale de France Sénégal aussi mën na récupérer comme je dis maintenant aussi il y a des facteurs yo xamné ñun mënuñu ko xam Ali Cissé moko xam mais c'est un gosse bo xamné aujourd'hui par rapport à la taille par rapport également au jeu par rapport aussi hein ak li nga xam mom lay apporter en matière de course en matière également de positionnement défensif c'est un jour boo xam ne nañu valoir lu mais gars yi bu ñu fàtte bu ko pour man tey jii bu Sénégal eggee foofu égal moom dafa dafa tax mu egg fi muy kan muy ki nga Crépin Diatta Crépin Diatta gars yi franchement donc blessure au tax mais Crépin Diatta bu ñu ko fàtte c'est un jour boo il peut apporter techniquement manqué na Sénégal manqué na Sénégal bu baax a baax parce que moo tax tey poste bi Bouna Sarr jouer keroog bu fi Crépin nekkoon Crépin mën na jouer bon à Sarr également qui un jour boo comme je dis ici là du temps de jeu aussi on a une équipe exceptionnelle exceptionnellement exceptionnelle on n'a rien à envier à aucune équipe donc s'il veut jouer vers un, un système de 4-4-2 avec ou bien 4-3-1-2, 4 plutôt 3-1-2 ou bien 4-2-3-1. Système vous monter avec des noms Mais aussi, gars, il y a des joueurs qui sont National, mais Samba Diallo pour c'est un gosse qui mom il a été formé, c'est un pur produit du Sénégal. Actuellement, il évolue le Dynamo de Kiev. D'ailleurs, un problème fort non, mom dina changer de club forcément, bon, mais jeune Bini, à c'est peut-être, mon anecdote qui Gouné, de préparer relève, relève, double quoi, insérer aussi. Mais je ne pense pas. Mais, nous connaissons aussi techniquement, il pouvait apporter quelque chose Amna ñu aussi ñu wax né ki ak Moussé pour moi, Ediman Ndiaye aussi c'est quelqu'un qui a apporté apporter euh, également sur le plan technique li nga mom la soxla pour densifier également le milieu de terrain accompagner ce ñaari milieu défensif mais aussi c'est un joueur qui a aussi confiance en plus de temps de jeu aussi il peut nous valoir beaucoup de choses maintenant est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer au niveau de l'équipe nationale du Sénégal ñeu rek intégrer parce que également bu leen fàtte dafa am ay pour l'instant ils sont un boulots. Nable, mais Eleman Diaye pour moi également. Donc, à Cissé, s'il le juge nécessaire, sur le juge nécessaire, El Tactico, Mennoko, ou Pape Alassane Gueye aussi, beaucoup de ces nationaux, quand il est venu, il a apporté beaucoup de choses. Il y a aussi qui Sofiane Diop. Sofiane Diop, il y a tout qui il y a tout qui Sofiane Diop qui parce que d'abord, il faut que nous précisions, parce qu'aujourd'hui, nous au Sénégal, Djongo la bo xamné wala bok Miss Typhine la bo xamné célibataire la gaay yëpp ñoy top ci ginnaawam Sénégal war top ci ginnaaw kenn ku su mel également Boubacar Camara gis ngeen kéro vidéo Malen leen wan bo xamné inventé wu mako gis ngeen donc kii di Kalidou Koulibaly Boukhari ak Bouna Sarr di wax ak ne ko ñëwal ñëwal donc si tu veux gagner quelque chose ñëwal mais ki nga xamne ne moy Sofiane Diop mom gaay yi sincèrement pour man l'instant nañu ko def parenthèse lu ñu ko def parenthèse moy Sofiane Diop ba légui mi ngi football ak équipe nationale euh, mi nga xam espoir bu France Sofiane Diop ba légui waxul lu leer donc Sofiane Diop pour man comme que mi ngi jouer équipe nationale France moy bëggul man loolu laa ko pour l'instant bëggul ñëw équipe nationale du Sénégal donc Aliou wax leer na équipe nationale du Sénégal tay mom gars yi ko soxla mais soxla wu kenn et Sénégal tay on est premier d'Afrique et parmi les meilleurs du monde on est 20e au classement mondial donc Sofiane bu bëggee ñew dina ñew bu bëggul ñew tant pis pour lui mais nous on avance avec deux joueurs Boubacar Kamara il peut apporter beaucoup de choses Même ngi kenn Boubacar Kamara C'est le même registre que Idrissa non ce n'est pas le même registre désolé Boubacar Kamara pour le dire hein, techniquement il est beaucoup plus affûté que Idrissa Gana mais aussi c'est un joueur boo il peut jouer défenseur parce que mon défenseur Il milieu défensif là défenseur rôle plutôt, nous devons milieu défensif. Et c'est un joueur qui aussi, il a une certaine qualité de centre, de repositionnement et de placement. Et que pour le moment, le Sénégal doit sort le Et que ce genre de joueur, nous a apporté l'équipe nationale du Sénégal. Mais comme on dit, hein la Coupe du Monde, taille la def tirage bi Sénégal amuñu équipe bu muy tiit gars yi bu non li bëgg li ku am parce que aujourd'hui Sénégal a montré avec l'histoire que une équipe yu ponk li ñuy ça a eu ñuy dajeeg les Sénégal di gën a motiver gën a footballam parce que les joueurs ont envie de prouver quelque chose ki ngeen gis ne également mooy Borna Bésséméa moi mooy nag ah, ki nga xam manager u Sadio Mané bi gars yëpp critiquer naan ko moom Sadio Mané bu ko ñàqalee fayre mom moo tax loolu moom li wax dem leer néna na Sadio Mané actuellement donc ñi ngi waxtaan mais waxatu Liverpool waxagul waxu affaire prolongation mais xamna mom actuellement que né Sadio Mané mi ngi déglu donc loolu la wax ki nga xam nag mooy Mohamed Salah son les informations mom dafa bëgg am salaire bo xamné c'est supérieur à 300 000 donc euros par mois donc loolu la soxla mom mais mom vëm selon les informations moy des ca Liverpool mais batay Liverpool waxagul concret waxaguñu d'accord aguñu ki ngeen gis ni également di Divock Origi à 95 les gars il va aller au Milan parce que Milan AC actuellement moom la priorité pour renforcer équipe bi nga donc équipe bu Milan AC parce que c'est un très grand attaquant comme qui qui Jürgen Klopp club won ki nga xamné moy Bruno Fernandes waxon contrat pour 2027 lañ ko lo mais 2026 officiellement avec une rallonge d'un an supplémentaire donc day dem ba 2027 Bruno Fernandes mi actuellement il se sent très bien au niveau de Manchester United côté Marseille waxon a également sur les informations en janvier wa Marseille a bëggoon notamment dirigeants yi Pablo Longoria jaay ki nga xamné Ahmadou Bamba mais il faut retenir ki nga ni Sampaoli mom il compte sur Ahmadou Bamba notamment également que est actuellement Milik ba dé blessé ci seen match bi du contre la Pologne ba ils auront besoin également de mettre un attaquant et Amadou Mabadien également il est bien placé pour jouer ce poste moom mi nga xam ne sax dellu na jàmbaar nga xam fa lañ ko formé rendre hommage ci photo bi comme une coïncidence koy c'est le futur aujourd'hui de l'équipe nationale du Sénégal et aux ñoom à venir avenir équipe nationale du Sénégal ki ngeen gis Ismaël Garbi mon acte actuellement il a 17 ans il évolue évolué fa nga xam donc Paris Saint-Germain donc club ici maintenant Real de Madrid ay Bayern de Munich ñu ngi surveiller parce que dañoo bëgg Aujourd'hui, bi parce que c'est un jour très prometteur et du côté également de la Juve qui nga gis ni nak ah, donc Paulo Dybala wax ngeen comment il va partir libre de la Juventus de Turin mom actuellement il serait intéressé pour rejoindre li nga xam moy équipe bi di FC Barcelone même bu fekké ne am na yenn club yo xam tay tey ñu ngi ci ginnawam ak gaay yi xam ñu sama mbokk yi PlayStation donc FIFA 2022 gaay finalement dañuy changer tour bi day nekk EA Sport FA ah. FC plutôt e-sport, FC lay à partir de 2023 donc non lay e-sport, euh, FC Le FIFA 2022 déjà dit, tout tudd 2023 en tout cas les gars c'était les informations que je voulais vous donner di Diego waat ak bruit beeg mais gis ngeen ci mbedd bi mais donc di Diego ci lépp lu matul toujours un plaisir de vous servir gars on avance ensemble rendez-vous tout à l'heure pour décortiquer la poule du Sénégal Dia ngeen